suuf si bari na ciow barki démb rek euh, euh, li ma la wax nag moom dañu ko waxtaane maanaam ba député yi ne la ñoom kat li mbir mi ñor na leen fokk ñu ñëw ñoom itam xam affaire bi ni mu demee mbirum suuf mi nag moom euh, wax naa ci man ci assemblée ak ministre Ablaye Daouda Diallo ministre des finances mbirum suuf dafa garaaw boo ko seetoo àddina bi am ay réew yu bare yoo xam ne dafa am ay tàmpalikoo ndax mbiru suuf kon mbiru suuf dañ ci def dank. wax naa Abdoulaye Daouda Diallo ne ko man lima ma ko gisee mooy nañu def audit foncier ci Senegal. Manam, nguur gi na set fépp ci senegal suuf si nu mu tëddee gi ni mu tëddee ak ñi ci jox ba tax euh, kaw gi di di di di di yëngu nañu seet joxin woowee nu mu tëdde est-ce rafet na wala rafetul loolu bu ñu ko seetee lépp lu ñu ci war a jubbanti ñu jubbanti ko jàmm dina dellu si ci réew mi euh, waa Ndingler maa maa ngi jokkoo ak ñoom démb rek euh, leon woo na ma moom ci responsable yi la bokk euh, war naa faa dem xam naa ne dinaa ci waxtaan ak député sama groupe Liberté et Démocratie ñi nga xam ne am féex nañu seen jot may na leen ko ñu jéem a seet nu ñuy demee aussi njaga ñaaw euh, euh, euh, ndengaleer ndax itam loolu mooy liggéeyu député